naka ngeen ko gisee donc ndax ndaxte dañ ne dañ leen a notifié ne leen comme euh, commissariat d'arrondissement de Pikine bi que ni amuñu droit ouvrir QG bi waaye xulil dañ ko ubbi woon hmm? nañ ko dañ ko ubbi woon hmm. ko tëjaat hmm. jarul mer jarul jàpp tëj leen rek waa tëj bi est-ce que yoon la ci laaj waaw non défi c'est pas encore définitif loolu loolu uh-huh. garaawul xulil uh-huh. yéen a ko ubbi e tëj leen tëj leen jarul jàpp kay ah affaire bi àdduna day jeex. Mm-hmm. est-ce que tu sais que je je parfois dama sama xel. Mm-hmm. je je gis na may xalaat y a quelqu'un à qui je pense à chaque fois. Mm-hmm. Euh, je penserai toujours à Maty Sarr Niang à tant d'autres voilà. à Amidia mère mmh. Amidia et voilà. mais je penserai fortement à Oustaz Assane Seck qu'est-ce que ce gars fait là-bas voilà. Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye Fadilou Keita ba ci Bassirou Diomaye ak ñeneen c'est-à-dire que foofu laay wax APR lu ma leen mere si àdduna mm-hmm. liberté yi ñuy yi ñuy transgressé yi ñuy bafoué yi jël teg ko ci ci teg ko ci ci ci ñun ñoo yore nguur gi mm-hmm. loolu la rek mm-hmm. mais bala ngay xam ni yàlla yàlla nga wàcc dañ leen di xool si caméra ne leen APR bis dina ñëw di ngeen wàcc barke bàyyi laay ale da ngeen di wàcc toog ci suuf parce que xamalu tax mhm. gis nga baat tegaw ci kaw jëfal mu baax ba bone baa wàccee ruus te malheureusement hélas nan nga mën a fekkee ay ni QG yow loo xam c'est pas encore définitif ba pare ba pare dafa bëri xam nga suñu kilifa yi mhm. euh, ndeysaan zel baaxul mhm. je parle pas de la police je parle de ñay santaane. waaw parce que souvent. kay santaane la. waaw la. Mm-hmm. léeg-léeg ñi ñuy sant seen xol du si neex. c'est ça waaw il faut nit ñi mais ñay santaane la la part des choses. xooleel du police du gendarmerie ñay santaane la. waaw ah, que ñoom te ñay santaane boog ba xama souvent ñan la ce sont des acteurs politiciens wax ma politique de. des mm-hmm. politicards et politiciens. mooy da gis ku toog fële parce que am na ndombal tànk jël décision woote joxe ordre. Mm-hmm. jaxase dëkk bi yëpp ci lan. pour égo maanaam APR ñoom égo la ñuy demee xam nga égo nag mooy xol mooy égo surdimensionné mooy ko aw sa xol dafa bon mhm. sa xol baaxul mhm. xol ba bon nag du yor réew soxna si ñooñ ñu jàpp yàlla na yàlla libéré mais mhm. jaru que saa yi affaire bi mën naa rafet gars yi génn nañu ñu ngi pare ne coow li bari na nit ñaa leen ndiiraan dafa jar xol bu dagg a jàppaat jaru que et puis sax est-ce que du mujj niru leneen parce que bu fekkee lu ni mel am na euh, nit ñëpp bi ñu waxee ne Bassirou lañ teg ci kanam am ñuy gis ne sax ne peut-être xëy na euh, fii ak fan mën nañ gis loo xam ne mën nay dal ci kawam wala lool. Mhm. ñu xëy gis lu ni mel est-ce que du jox raison ñooñu soxna Coro. gis nga Mahadi damay fekk si ba tey rek Baye Assane. Mhm. parce que pello bi am na solo bu baax a baax a mhm. macha allah. Baye Assane wax na léegi ne na rafet. mais xam nga kan lañ war a gën a wax na rafet président Macky Sall mm. dañ ko fàttali ne mm-hmm. bii mooy génnam mm-hmm. te li ko fi des pour mu génn mm-hmm. ay weer yu néew la bu amee nag leneen lu mu gëm ci xelam wala leneen lu mu gëm ci xolam ka xëy na du génn wala day toogaat wala kim ko dafay war a tegaat kenn pour mu lii ah loola ñun mënuñu ci lenn waaye ñun suñu gëm-gëm mooy day génn moom moo ne bokkul ci élection yi ba pare Sénégal yëpp àndandoo jaajëfal ko na def génn bu rafet te ni mu gën a rafetee waaye gis nga gën a rafet bokk na ci bàyyi doomu Sénégal yii kenn doomi aadama yii ku yëngu nga jël yóbbu ci kaso ku yëngu nga jël yóbbu ci kaso dama ni nit ku baax dëgg dëgg dëgg dëgg ñàkkewul nii kersa ñàkkewul nii kersa <laughs> yàlla yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ñu bind bind ah, malaaka sax ñàkkeewul nii yow loo xam ne bu la ko tegoon nga jooy wala nga làqatu wala nga rus te te yow te yow ñemewoo ko yow ñemewoo ko te mën ñu jël exemple que ñemewoo ko waaw ndax bu ñu fàttalikoo am na lu fi jot a am ah. nit ñi di ko waxtaane partout yaa ngi dégg nga jël doomu aadama bi ndax lan ay futilité ndax lan sama bëgg falu ndax sama bànneexu bakkan sama nafsu bakkan jël ay doomu aadama nga jël leen yóbbu leen ci kaso bi ak kaso ni mel jël leen yóbbu leen ci commissariat yi leen indi yóbbul demal ñëwal ndax lan ay futilité ay ubbi ay QG ak ay tëj ay QG ci loo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox doole tey jii ñuy ñuy ñuy gendarmerie wala ñuy police mën nañoo ñëw joxe ordre tëjaat leen lii ñu tëj ko dellu seeni kër toog mhm. fan lay mujj xam nga fu muy mujj Baye Assane yaa ngi fi wax léegi sol bracelet bii mu mu yomb la lool nga sol ko gis nga xam nga fu muy mujj ci bracelet bii amatoo droit sol ko non loolu boobu moom boobu moom bu bu la ko sax xelal déedéet boobu boo ko waxee ni sax lañu joxe bu la xam nga lu tax xel mën naa dem foofu Baye Assane Baye Assane xam nga dañu ne Pastef ñoom ñoom ñoom ñoo mbubboo vert blanc ak rouge bii mën nga dem ba foo ko romb rek mu xaw a niru Pastef ñu ne na daj. maa du comme li ma sol nii. coro barki yàlla. ma ñu ma. <laughs> li ma sol waaw a niroog ñoom. Ah. lay wax. Mm-hmm. dafa am loo xam ni. Mm-hmm. ka yore yat taxaw fii. Mm-hmm. te wayul. Mm. ba yore yat taxaw fii te wayul. bal woon fu moo dóor. xam noo ko def. Mm. nekk xullil fee. mu xool fee nga nguufaan ko mu dem parce que xamul lan moo la dëgg les sénégalais soo gentils mmh. sénégalais yi baax nañu rafet nañu xol yaatu nañu ku am problème ak sénégalais doo nit ñi ci ëpp laa wax c'est ça ñëpp matuñu ñëpp matuñu mais sénégalais yi ëpp mhm. danoo baax baa leen jiitee am problème ak ñoom ça va pas ça ne va pas parce que sénégalais ba xëyee lan laa soxla na ndékki normal añ normal mhm. reer normal mhm, mhm, dem fi moo dem teg ataaya dégg jàmm moom car rapide sax doy na ko wallaahi dara méttiwu ko yow soo nee am jafe-jafe ak kooku ça ne va pas chez vous chez toi ça aw aw aw aw yaa nga diggante nitoo di nitari ak nita di Baye san li nga wax nii c'est vrai ah, man keroog lay toog mënul am jafe-jafe sama xel dem si loolu ma gis réseaux sociaux yi gars di balak fii ah réew mi fii nga gis ñu gis affaire Baye Fall yeeg pël yeeg. gars yi ma ne waa peuple Sénégal. c'est-à-dire dañuy transcender dañuy jël jafe-jafe. Sénégal moo jël jafe-jafe indi ko jàmm indi ko jàmm indi ko jàmm. justement a jubóol lañ des l'exemple sur le mm-hmm. cas violence yi fi am yëpp. Mm-hmm. ci kaawu Ousmane sonk mm-hmm. fan la nit ñi teer. yaawoo Sonko namm naal. waaw affaire bi <laughs> mujj. mais yow nguur bu am xel. xam nga lañ ko def. kafagree. mais nguur bu normal laa la wax. Mhm. da ngay ne mais attends mhm. engouement bi mhm. yow use ko sax exploité ko sax yow nguur gi. mais Baye Assane est ce que xam nga ne jamono jii koñ boo dugg. première kër deuxième kër am nañ doom ju nekk ci kaso bi. te dara yóbbu waaw fu mu nekk nii koñ boo dugg yow boo xamul ku nekk ci kaso bi kuñ jàpp ndax ndax nguur. wala sa mbokk wala sa xarit wala sa lii rek nee ma soo xoolaatee dëgg dëgg dëgg sa entourage il faut nga xam ci koo xam ne nii yéene ko woon kaso tamit ci kaso bi jamono ji te dara dugalu ko fa lu dul dañu naan la mu def ci parti Pastef wala la mu wax ci parti Pastef wala jéego yam ca taxaw nañ waxante dëgg non mais yow kooku noonu moo mën a toog gis ay doomu aadama mhm. nga jàpp seeni ay doom ñuy xëy di kafakaree yow nga toog ba tey di mën a mer nga xam ne kon ça ne va pas nga xam ne kon ça ne va te bul fàtte nag Baye Assane ne li ma wax nii nii mën nañ ci duutagum baaraam ci mën nañoo dem ba <laughs> tere Pastef wax ma la ay tëj QG mais eh, ex Pastef bii ñu wax ne ku ko waxul tey ji mën nga am problème mm-hmm. mais ku la mën a mën a mën a mën a dem mm-hmm. ba dem ak yow ba nee na léegi sax far yàlla sax amoo sañ-sañu wax Pastef te waxoo ex ba mm-hmm. mais kooku kooku tey jii mën na laa yóbbu ci leneen. coro te bu ñu fàtte ne luñ ne mënu ko rek. Mm-hmm. luñ ne mënu ko rek mu def ko. waaw coro coro fii nag Sénégal tollootuñu fi waaye di mëneek mënewul xam nga lu fi des. Mm. xulil maa la wax ak aw. Mm-hmm. ñaari weer a fi des dañuy dem ci élection ci jàmm ak salaam bëgguñu benn coow. xulil ñëpp dem ci élection ci jàmm ak salaam ma répété la ko. 7 mm-hmm. heures bureau yi fees ak jàmm ak salaam incha allah. 8 heures 45 mbalit mi fees dell ak marron maa la mm. ni. sénégalais yi déggoo ma naan baax na nañu ba fu baax jam waaye am na foo xam ne du duñu fa egg dañuy mm. waxante dëgg rek te yàlla tax surtout ñun duñu ay jaam déedéet duñu ay baadoo la déedéet mm-hmm. ay mbëfër mbëpp ki fëfa këkë këgëx duñu ay animaux nous sommes pas mm-hmm. des bestiaux coro mm-hmm. nous sommes des êtres humains bracelet bi kii bu la neexee nga bañ ko tuddee président Ousmane Sonko nga tuddee ko Calvin Klein dégg nga bi bala neexee nga tuddee ko ñoo ñuy jiñ loolu Dolce and ah, Gabbana <laughs> bu la neexee nga tuddee ko mhm. Picasso nee na Macky Sall wuyul bu la neexee nga tuddee ko président Macky na ndax mën nañ ko tudd tuddee ko xuli bracelet ka mu neex nga takk bracelet APR waaw ka mu neex nga takk bracelet Khalifa Aboubacar Sall Karim Wade Coro Mandela ak keneen ak keneen Coro gis nga Sénégal mhm. xam nga lu tax lu tax malaan malaan la non bu leen wax loolu parce que dafa am koo xam ne baa ko joxee xalaat mu gàddu ko mhm. xalaatab lii mënoo ko fee interdire parce que du yoon. loo ne sañu ex Pastef pas ce n'est pas du français. Mm-hmm. da ngaa dégg ex Coro Mandela. déedéet ex déedéet ex Pastef